est-ce que xam nga ni sa bëñ bu yàqu bi ngay xeeb nga xamante ni dafa amee kari mën a dem ba jural la ay conséquences yu doy waar lu ci mel ni infection boo xamante ni mën a dem ba jàpp sa yaram bi yépp dem ba jàppale sa xol. soo bëggee xam kari fan lay jugee naka ngay def ba maytu ko ak boo ko amee naka ngay def ba faj ko déglul vidéo ba mu jeex te bul bàyyi benn détail mais avant dama lay ñaan. nga abonné ba noppi nga like vidéo bi ñi nga xamante ni ñooy faral di gën a am carie dentaire seen bëñ di yàqu mooy ñi nga xamante ni duñu raxas seen gémmiñ ba mu set ak ñi nga xamante ni seen gémmiñ dafay faral di wow ndax sa gémmiñ salive boobu muy génne mooy tuflit yi ci nekk dafa am ay enzymes ci nekk ak yenn mbir yoo xamante ni dafay aar sa gémmiñ ndax gémmiñ dafa xaw a acide donc salive bi mooy tuufiti si jëm boppam dafay faral di wàññi acide boobu ba noppi dafay indi ay mbir yoo xamante ni dafay xeex lépp loo xamante ni mbirum salte la si gémmiñ gi maanaam moom dafay raxas gémmiñ gi naturellement carie dentaire instant bi muy gën a gaaw a formé wu mooy guddi gi nga xamante ni lekk yi desoon si biir bëñ bi bactérie bi dafay ñëw tegu seen kaw ànd ak ñoom daal di créer benn réaction de fermentation maanaam dafay nëbal lekk bi léegi nëb nëb boobu bu jàppee bëñ bi loolu mooy faral di indi carie lekk yi nga xamante ni moo gën a gaaw a joxe carie dentaire mooy lekk yi nga xamante ni dafa saf suukar lool ba noppi di faral di kole comme li ci mel ni ay chocolat ay bonbon ak tàngal yi nga xamante ni au lieu nga màcc ko nga daal di ko yëy su ko defee lekk bi dafay des si diggante bëñ yi wala si biir bëñ bi bu ko defee bactérie bi ñëw tegu si kawam créer fermentation bi indi carie dentaire. yan signe moo la ne am nga carie au début soo amee carie dentaire mën ngaa bañ am benn signe mën ngaa bañ am benn métit ndaxte bëñ dafa am ñetti xaaj bi si jiitu mooy émail bi. nga xamante ni moo tegu si kawam nga xamante dafa dëgër loolu amul ay neer yu fa nekk yoo xamante ni wan ne am nga métit boo xamante ni jàpp na sa bëñ bi beneen bi ci topp mooy nga am ay sensibilité dentaire maanaam boo lekkee wala nga naan lu tàng wala lu sedd da ngay a métti tuuti instant bi nga xamante ni fa ngay commencé di amee ay métit yu jéggi dayoo mooy instant bi nga xamante na li nga xamante mooy pulpe bi nga xamante ni am ay neer am ay fa nekk donc carie bi bu fa eggee rek da ngay gis ne da ngay commencé di sentir métit ba noppi aussi tamit métit bi bu la jàppee lool mën na la tere nelaw nga xëy doo mën a liggéey ba noppi aussi tamit inflammation bi maanaam néew néew bi mën a jàpp sa kanam bi yëpp ba noppi aussi tamit mën na indi li infection bi dem ba jàpp deret bi yëpp ñu koy owee septicémie septicémie boobu mën a dem ba jàpp xol bi indi la li ñu owee endocardite carie dentaire soo ko amee mën a tax sa gémmiñ di am xet maanaam sa gémmiñ di xeeñ naka ngay def ba moytu carie dañuy faral di la wax ne saa yoo lekkee ba noppi moo xam ndékki la añ wala reer ak avant ngaa tëdd na nga boros sa gémmiñ man li ma lay digal li si jiitu utal pat brosse socc ak paquetu chewing-gum dal brosse ñaari yoon par jour mooy instant bi nga xamante ni da nga yeewu ak instant bi nga xamante ni da war a tëdd su weesoo loolu socc bi saa yoo lekkee ba noppi moo xam ne ndékki la wala añ la wala reer la nga daal di socc sa gémmiñ ba mu set soo noppee nga daal di jël chewing-gum lan moo tax nga war a utiliser danga war a xam ne lekk yi nga xamante ñoo nekk si biir bañ ñi nga xamante mooy tegu si biir ruq bañ yi pour nga génne ko ak socc wala ak brosse dafay xaw a métti waaye instant bi ngay yëy chewing-gum bi dafay détaché waale li nga xamante mooy lekk yi bu ko defee aussi tamit nga daal di koy yëyaale mu daal di li nga xamante mooy si bëñ bi xam naa di ma wax ne chewing-gum bi dafa am suukar di la ni suukar bi nekk si singom nekkul comme suukar yi loolu ay édulcorant la te édulcorant bokkul ak suukar yi nga xamante ni dafay créer fermentation diggante moom ak bactérie bi daal tegu si bëñ bi indi li nga xamante mooy carie dentaire ba noppi sax singom bi boo ko yee da nga ba mu sàlli fekkente ni gis nga ni danga nga amee carie bu ko jéem fajal sa bopp demal nga gis dentiste mu daal di ko xoos dindi ko ba mu set wecc bu fekkente ne bëñ bi mën nañ ko récupérer ñu récupérer ko bu fekkente ne bëñ bi dañ ko war ñu daal ko dindi bu fàtte partage vidéo bi bu ko defee ñu ñu daal di conscient